bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin alfatihi alqatimi nasiri alhadi ila siratillahi almustaqim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sunu mbokku sit bi di Seneinfo ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon te di leen ndokkeel ci weeru màgg wi ñu nekk di leen jaajëfal seen taxawaay bu am solo bii tabarakallahu noonu la ñuy nuyoo mboolem fu waay mën a nekk te dib jullit di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu nuyoo lislaam waaye di la ndokkeel ci weer wi te di la baalu àq di baal di ñaan yàlla boole ñu baal waaye di ko ñaan moom borom bi subhanahu li nuyoo bi làmboo ci jàmm ak yërmande ak barke yàlla nañu ko boole defal ñun ñëpp te def ko ci mu islam bi yëpp ya bi dafa mel ni ñu ñëwaat fas yéene ànd ci beneen jotaay ci suñu émission bii di Azikra tay nag ñu fas yéene ànd ak ci wax lu ajo ci koor ba léegi ci ay chartaam ak ak i sunna yiñ ci sunnaal ak yi nga xam ne mën naa yàq sa koor kon boo ñu dégloo bi isnillahi taala danañ bokk ñu ñëpp xam lan mooy charte yi nga xam ne mooy tax nit ki woor war ko ak charta yi nga xam ne moo koy wéral tamit waaye danañ bokk xam li nga xam ne day yàq koor su ko defee ñu jéem ko moytu incha allahu taala mbokk yi or koor farata la ci bépp jullit boo xam ne mat na mukalaf comme ni ñu ko karim jàngale chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinati min alhuda walfurqaan mooy lam ca teg mooy faman shahida minkum chahra fal yasumhu wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu ayaamin nuqar nee na koor wi nga xam ci la yàlla wàcce kon mbokk yi nañ boog xam ne weer bi mooy anniversaire alquran képp kuy safa alquran kon war ngaa fexe ba suyete ko ci weer bi te mooy bëril di ko jàng bëril di ko nemmeeku waaye soo mënul lool sax di ko déglu wala nga wut ku la koy jàngal kon maa ngi leen di ci bàyyiloo xel yéen sama mbokk julit waaye lam ca teg mooy ne fa man shahida minkum shahra falyasumhu yàlla nee na képp koo xam ne weer wi jot na ta nga teew wér nanga ko woor waaw su fekkee nag danga am ngànt lu la am empêché ba mënoo ko woor fa iddatum min ayaamin uxar maanaam fan yooyu bu ko woor waaye su weer yu jàllee ba loolu dëñ na nga fas yéene fay ko kon loolu la yàlla wax ci laaye jooju kon loolu moo ñuy wax ne kon weeru ko dañ koo war a woor léegi nag ndax ñun ñëpp la war wala deet loolu déeret borom xam-xam yi wax nañ ci lu yaatu gannaaw bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee dafa am koo xam ne weeru koor war na ko am na koo xam ne weeru koor warut ko weeru koor kan la war bokk na ci ñooñ mooy képp koo xam ne jullit nga te majeur am xel te am kàttanu woor gi am wér te tukki woo xamal na yow woor weeru koor dafa war ci yow yooyu nag mooy yi ñuy churutu wujub mooy sarta yi nga xam ne dafay war dafay waral ci nit ki mu woor weeru koor te yooyu boo ko xoolee defe naa juróom la wala juróom benn mooy ndem jullit nga te majeur am xel te am kàttan gi am wér te tukki woo demoo na yow war na nga xoor weeru koor su fekkee nag tey yàlla dafa dogal ne kooku wérut teew na waaye wérut donte ne jullit na am na xel majeur na waaye yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne ku wér a di la su ko bu waa am na ngantay woor de si moment yooyu la ko am na woor suñ demee ba ma tene bu dee weeru ko yu jeexagul day continuer su jeexee nag moo xam ne da ko war a fay waaye su dee feebar la boo xam ne moom dafa takkoog moom nga xam ne diiru dundam lii nekkul feebar buy dëj ci moom su ko boobaa kon koor googu wàcc na ko waaye nag dafay def lu ñuy tuddee lele mooy fexe ba saa su nekk su nu ñi wooree ba dog mu jénnee loo xam ne te dépense ndëgu la mu joxe ko su ko defee koon charte yooyu mooy charte yu koy waral waaye am na charte yi nga xam ne yéen moo koy wéral charte yu wéral koor bokk na ci mooy yi njëkkoon a lim fële rek mooy jullit kon ku dul julit ku xaram duñ ko considéré muy dara fa yàlla ak lan am xel kon koo xam ne tey dafa wéradi am problème mu xel kooku wooree koor googu yi du wér ak lan ak ràññee ak tamyiz ak lan ak yéene ak lan bu dee ci suñ mbokk jigéen ñi la mooy na na set ci règle wala beneen deret boobu ñuy tuddee nifaas kon yi mooy sarta yi nga xam ne moo koy wéral léegi nag mbokk yi buñ fàtte yéene boobu bu amam solo la lu mat di bàyyiloo xel nit ñu bari danañ koy fàtte buñ ne weeri feeñ na ñu ngay tal leneen ñu ngay xool nañ dem duggee surtout suñ mbokki jigéen ñi nuñ programme yi ndëggu yeeg yee ci ajoog suukaru koor yeeg te yooyu yëpp nga xam ne daanaka benn du ci farata moom la ñuy gën a tal ka yi nga xamante ni mooy farata kon maa ngi leen di ci bàyyiloo xel mooy yéene ci buñ ne weer wi feeñ na rek lu ko daggee ca guddi googu ba fajar laata fajar di xar foofu foofu yéene rek baax na yéene woor weeru koor jaamu ko yàlla ndax dafa bokk ci charte yi tax koor gi mën a wér waaye bokk na ci yooyu it mooy inqitaawul aydi mooy na fekk moment boobu yow jigéen bi nga set ci règle kon su fekkee tey weeru koor bi muy feeñ weer bi muy feeñ dafa dafa dafa fekk nga nekk en règle su boobaa yow woor waragul la su boobaa yow woor waragul la da nga war a toog attendre ba set ci deret boobu soo demee ba set nag nga soog a yéene foofu it ma fay profité waale bari na ñoo xam ne loolu mën na leen di arrivé te duñ ci xam nan la ñuy def comme par exemple buñ ne tey suba la weeru koor wi guddi googu tombeeg mu ngi yoroon règle ñi dem ba fajar wala laata fajar di jot règle am arrêté mu wóor ko ne règle am arrêté na mais moom xamul ndax day dafa war a woor wala warul woor parce que mu naan sangoo guma te loolu jotewul ak lee dara kon boobaa foofu yow ndaw si lu mel noonu su la arrivé nga set laata fajar su boobaa dangay ngay yéene rek fas yéene woor moo tax liñ jàngale ci listam mooy jigéen loolu su ko arrivé saa su nekk dafa war xool boppam waaw ndax mën naa set du ko yëg su fekkee koo xamante ni ku yëgul boppam la kon maa ngi ciy bàyyiloo xel loolu suñ bokk jigéen ñi beneen bi it mooy deretu nifaas deret boobu nga xam ne jigéen su amee doom mooy génn ci moom loolu it day tax nit ki du mën a woor loolu su ko arrivé day bàyyi moom it ba loolu jeex set ci moom mu soog a woor su ko defee même su fekkee nag ci biir weeru koor bi la jeex na continuer ànd ak nit ñi dabaatal su defee suñ demee ba weeru koor bi jeex lu mu woor agutoon rek mu fas yéene ko fay su ko defee kon yooyu mooy sarta yi tax sa kor wér waaye mbokk yi weeru koor am na luñ ci sopp am na yuñ ci sunnaal kon bokk na ci yooyu mooy taajilul fitri di gaaw a dagg waaw fa nekk di jaay ak njàmbaar waaye fexeel ba comme niñ ko jàngalee su jotee rek nga def ko koor mi ngi tàmbalee ci fajar fi mu xare ba fi jant bi di soxe foofu su fa yeggee rek xamal ne koor gi jeex na loola war mooy nga dagg te loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la daan def dagge nag bokk tak ndogu mbokk si saako saako yi maa ngi di bàyyi loo xel lool buñ ne dog mooy xoolal tàndarma ma dee am nga ko boo ko am ndox bu tàng nga naan ko rek te dem def li nga xam ne mooy farata ya mooy julli ci soo fa bëggee toog topp tàndarma jaag mburu maag ya ci aju eh tabaarakallaahu yaakaar naa kon waxtu dana dem bala fa te loolu gënal kon maa ngi leen ko bàyyiloo xel yéen sama mbokk yi soo ko defee bokk na ci ñu sunnaal mooy taxiru suxuur yéex a xëdd loolu sunna la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ko def waaw nag yéexe gi lool yéexe gu ëpp nag ba nga xam ne yow léegoo ne comme danay am ñu koy def da ngay bàyyi ba bilaal taxaw commencé di nodd waaw nga soog a def li ngay def loolu gënut bu dee baax na it gënut maximum diggante fi ngay xëdd ak fi fi ñuy salaato naa war a nekk à peu près loo xam ne boo ci doon jàng lu mat cinquante aaya cinquante verset dina ko war a toll comme lu toll suuratul Rahmaan à peu près cinq minutes daal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu toll noonu ci la daan xëddee fi muy xëddee fi ñuy salaato day toll ci à peu près cinq minutes boo ko doon kii noonu kon bokk na ci yooyu mooy di yéexi xëdd waaye nañ ji bàyyi xeel ci xëdd ndax yonent bi ku ko fonkoon la daan na ko jàngale lu baax la dina la dimbale ci yu bëree bëree bëri même su fekkee yow ragaloo xiif sax waaye def ko rek ndax sunna la la nga def noon tiyaabo la te jullit ëpp na muy gis tiyaabo di ko bàyyi naaw kon dañ di profité ci loolu bokk na ci sunnaal ci biir weeru koor mooy azziyaadatu fi amalil xayri lépp lu baax loo doon def rek gën cee yokk góor góorgóorlu ca waaw ndax wax naa la ne léegi weeru koor boo ci jullee benn naafile naafile boo ko si jullee day wecceek soixante dix rakaa yoo xam ne farata la kon farata bi nan la war a toll doo ko doon à peu près kenn xamul ci tiyaabu nu muy toll naka noonu it nag sarax boo ci def wala jëf ju baax boo ci wax boo ci def wala même bu dee kàddu la goo ci wax sax xamal na it noonu lay mel dañ laa jox échantillon ci lee mais lépp lu baax loo si mën a def rek xamal ne danañ ko tey gonfale ci limite bo lim boo xamante ni day bëri kon nañ di góorgóorlu lépp luñ doon def suñ ko mën a yokk ci lu baax ñu jéem koo continuer di ko def yokk lépp luñ doon def loo xam ne naka su dul noonu la ñu arrêté ko ñu arrêté ndax kat weeru koor weer la woo xam ne weeru yàlla xormaal la ba lépp loo ci def loo xam ne lu bon la yàlla it dala koy gonfaleel dala koy gonfaleel kon nañ di bàyyi xel di xormaal weer bi dañuy nettali ne benn yéeféer amoon na doom joo xam ne dafa doon lekk ci bëccëgu weeru koor bi muy lekk rek mu ñëw dóor ko ne lu teeyo yow am respect ci weer wii nga xam ne weer wu yàlla xormaal la waaw léegi nee nañ kooku dafa am koo xam ne dafa tëdd ba guddi gént ko gannaaw bi mu dee mu nekk biir aljana affaire bi jaaxal ko mu laaj ko ko mu ne ko waaw man yàlla daf maa dimbale ci act bu ma defoon noonu maanaam jëf ju jëf jooju ma defoon ci la ma yàlla dimbalee ba laata may génn àdduna bi ma tolloo ci sukuraat yàlla xéwalee ma mën a tudd baatu seede yi loolu moo ko dimbale kon rawatina nag yow jullit bi yow yaa gën a war a am respect ci weer bi même boo demee ba am ngantay woor sax amal respect ci weer bi bul génn tey ci mbedd mi di def loo xamante ni rafetut kon maa ngi ciy bàyyiloo xel loolu mbokk yi bokk na ci yooyu mooy kaful Ah, téel sa làmmeñ ci loo xamante ni amul la njëriñ wa min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaxin yonent bi jàngale na ci hadis ne bokk na ci luy rafetal lislaamu asuwaay mooy mu bàyyi lépp loo xam ne amulul ko njëriñ bokk na ci sunnay koor addu'a u inda al iftar mooy buñ demee ba dog jot boo téyee sa tàndarma wala leen loo mën allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faxfir lii ma qadamtu wa ma axartu dégg nga kon loolu bokk na ci yi nga xam ne bëgg nañ ko am na ñoo xam ne nag buñ koy wax tabaarakallaahu da nga reewa keku ndax nañ koy waxee waaye loolu yëpp ci gàtt it la rek waaye duul lu jafe nañ ci bàyyi xel kon fi ñuy tëjee suñu wax rek mooy muftiraatu saw mi yi nga xam ne tey dafay yàq koor nañ ci bàyyi xel bokk na ci yooyu mooy lekk wala naan te tey ko ku ko def sa koor yàqu na non seulement waxuma la yàqu waaye li la ciy fekk sax moom moo gën a métti mooy kafaara xam naa danañ ci ñëwaat waaye nañ bàyyi xel ne képp ku lekk te tey ko xamal ne yàq nga sa koor ak aljimaaw amdan mooy ku ci def rapport donte sa soxna la sax ci bëccëgu weeru koor te amu maanaam benn ngant xamal ne kooku it kooram yàqut ak lan xay u amdan mooy wëccu totay ko am na koo xam ne bu wëccoo moo ko tey mooy koo xam ne jël na baaraamam dugal ko ci biir ci biir gémmiñam loojo affaire yi mujjeen kooku loolu day yàqu koor loolu bokk na ci du yàqu koor mooy lu ñu tuddee al istimnaaw dégg nga ko loolu nañ ko di bàyyi xel mooy koo xamante ni moom moo fexe ba euh, provoqué boppam ba ba jénnee ma niw ci bëccëgu weeru koor kooku it da yàq na ko kooram ak lan al azmu alal fitri koo xamante ni dafa jékki-jékki ne saay man damay dagg koor gi tey dafa metti ah loolu boo ko waxee rek yow sa koo yàqu na nañ di bàyyi xel waaw bokk na ci yàqu koor nga xam kooku suñ mbokk jigéen ñoo ko jago mooy alxaydu wa nifaas da nga war ba weeru koor régal arrivé la bis boobu xamal ne bis boobu danga koy fay ndax koor kooku yàqu na mënatul continuer ak lan ar riddatu ko xam ne dafa murtat yi bokk na ci yi nga xam ne ñooy yàq koor kon nañ di ko bàyyi xel ndax koor dafa métti ñàkk lekk ñàkk naan wax dëgg yàlla métti na kon boo ko yàqee rek kon dangay ngay gën sa bopp rek su ko defee lu ci jub ci yàlla lu ci dem suñu gàtt xam-xam la in uridu ila al islah mastata wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh